ñoom ñii xëccoo ñu mën a méngale seeni kàddu pour dal am ci réew mi parce que réew mi soxla na ko njaboot yi dal lañ soxla ci wàllu koom ma gis ne bari na ay société yu senegal yoo xam ne da ko fi waxoon waaye fulaa lu ñu leen woon kon nañu leen bàyyi xel waxit jéggale baal ñi ñuy baal yenn nit ñi ci wàllu impôt ak douane te benn nit rek mooy jóg jël décision ne baal naa nit ay milliards kenn xamul ci ban anam lañu ko jëlee ci ban décision yi ak naka lañu ko defee ma ne jaadu na loolu bu ñuy baal nit impo ñu war koo péncoo woo ña nga xam ne ñëpp am nañu xam-xam ñu boole leen ci genn kuréel ngir bu ñuy baal nit impo wala ñu koy baal wàllu duwaan ñoom ñooñu ñoom ñooy décider ni kii kat war nañ ko baal wala gis nañ ne. Euh, war nañoo mën a continuer recouvrement bi wala affaire yooyu. beneen bi mooy euh, lu jëm ci wàllum signature yu dul jeex ñu ngi daanaka ak quatre moo des élections nga ne président daal war na arrêté lu jëm ci ay signature. waaw waaw mais xam nga li tax ma interpellé président ci loolu man damaa jàpp ne fii ak juróomi weer chaise bi mu toog ma dama fay toog. kon bu waree def bu ma gisee muy def naka sudut noonu jaadu na ma interpellé ko bi mu waree signé feeru Sénégal jox ko benn société turque dama bokk ci ñi bind ne ko président ah déet parce que yëf bi bañ ko ko dafa arrêté kon jadu na bu ñu gisee muy signé que signé waat ñu ne ko li ngay signé kat bi yoboo nga ànd ceeg tey comme li la fi dese bariwul faw ñu nit ñu fa duñu bàyyi ñu xajamal cere ji parce que bu ko xajamalee bu ñu ñun ñoo fay nekk di yàgg xam nga luy def ndox ci cere ji ngir suuf sa féete suuf kon loolu problème la kon ñu ne jaadu na ñu xoddiku laata ñuy lakkale je crois que loolu moo tax ñu ne ko président li ngay def bàyyi ci xel parce que fii nga toog dafa am ku fi war a toog comme man dama caa gis sama bopp moo tax ma jóg bind ko lettre bi ma ko bind merci